cirë ngeen jëf coowal ñi waa kinin mooy bomb ci réew mi mooy mbamb ci yéen kaay ñu xëyandool tey enquête dina kaay nañu fa la yaakaar ji wékke ngir faj coronavirus bi la nañu noonee la demee covid 19 gi àdduna bi te ñu ne ba léegi gisaguñu lu koy faj ci ni gi ci la wékk yaakaar ci jamono ji kii fi njëkk a wax ne nañu boolee ni gi ci pajum coronavirus gi ndax dana ca man dara di docteur Didier Raoult mi ngi ci xët mu njëkk coronavirus ko nee nañu gaañaa ngi koy tàccoo fu nekk ne ca France nangu nañoo boole léegi Niwakinin gi ci pajum coronavirus gi ca Amérique ñoo ngi xool ak càmbar ndax dañu ko ciy boole am déet fii ci afrique réew yi ko fi tàmbale mu di Maroc Algérie ak Tunisie Sénégal fekki na leen kilifa yu réew mi ñoom it nangu nañoo boole chloroquine bi ci traitement coronavirus bi vox populi nañu moo taxit mbooleem lu di stock ni ci réew mi état bi teg na ca loxo réquisitionné na ko docteur Assane Diop di ñu wax ci vox populi ne yor nañu lu doy ci ni ngir mën faj ñi corona ci réew mi le témoigné nañu àdduna ngi ni waa kinin gi demoon ba ab drapeau wàccoon ci réew mi léegi doomub ni waa kinin mook taaw bu piscine buy defar ni waa Kinin rek moo fi newoon mu di Médis te tëj na boobaak léegi def na ñetti weer ndax dafa amee woon jafe-jafe xaalis léegi nag la mu daan liggéey te xamul fu mu ko jëmee moom la ñëpp soxla jamono ji ci jamono jooju yéenekaay yu bari ñu xëy ndol xëy nañu yeggee tolluwaayu coronavirus bi ci Sénégal suur soit nañu léegi ñoo nga ca téeméeri cas ak juróom juróom benn cas yi waa ministère de la santé siiwal démb moo yóbbu lim bi foofee Vox ko ci téeméeri ak juróom yooyee juróom-ñeentee ñoom wér nañu libération nañu ci juróom benn fan yi ñu génn ci la coronavirus bi gën a ràkkaajoo ci ndax ñaar fukki fan ci weeru mars ñoo ngi woon ci 47 cas waaye ci juróom-benn fan yi ñu génn lim bi dafa gën a ba yegg ci juróom fukki cas ak juróom-ñett l'observateur ne ko wax ji des na ne am na ay doomi Sénégal yu ne woon bitim réew ñu delloo si leen seenug dellu si moo tere nelaw kilifa yeme wàllu wér géram gi ci Sénégal ci benn semaine rek rapatrié nañu ñaari téeméeri doomi Sénégal yu manki fukk ci ñoom am na ci juróom-benn parental am na it ñeent fukki doomi Sénégal ak ñett yu ne woon Amérique yu ñu dellu si bu yàggul ba Berlin ca Lagrose ca fukki doomi sénégalais ak juróom-benn yu ñu fa confiné ñuy yëgloo bi nañu waxee cas importé moo tëj boppu gaañ yi ci ñi ñu tëjoon ci kaso yi ci réew mi am na ñu ñu ci génne journal Le Quotidien mi xëy xibaar bi xamal ñu ne toll nañu ci ñaari junni doomi aadama ak fanweer ak juróom-benn président Macky moo leen may garas ñu génn ci kaso yi le témoigné nañu li tax mu def loole mooy dafa bëgg wàññi tàncaloo xat-xatloo yi am ci kaso yi vox populi nañu ñaari junni nit ak fanweer ak juróom-benn journal yi ci réew mi nañu sant président Macky Sall ne grand place mi ngi ñuy wax ne Macky Sall génnee na juróom fukki milliards ak ñeent ngir jàppale ko collectivité territoriale yi ci xeex bi ñuy xeex ak coronavirus bi koppar yooye yéenekaay bi nañu yemb na depuis ñetti fan ci weeru mars maire yeeg conseil départemental yi li ñu bëgg a dooleel ci xeex bi port autonome bu Ndakaaru ñu ngi jàpp ci xeex bi bu baax a baax la yéenekaay nañu ñaari milliards la ñu génnee teg ci taabal ji ngir jàppe ko ci xeex bi ba covid 19 bi jóge fi